Martin Faye mhm. te yow sa jàngat la lay doon yow mi nga xam ni da nga ko dund sur le terrain. voilà sama jàngat moom yaakaar naa du sax lu bees lu ñuy waxaat waaye lu ñuy répété waat rek la. Mhm. jàmm baax na lool ci dëkk. Mhm. ñu boole àndandoo nekk benn xàccandoo doorandoo comme vous disiez. baax na waaye dëgg nag wax dëgg yàlla. ci loolu mooy mën a am pour nit ñi mën a jëm ci kanam. bu dëgg amul jàmm du am. te dëgg gi mooy xam nga lan. ñu rétablir justice. justice démb ci conseil des ministres président de la république comme ni ngeen ko waxee seen xel dal na ci moom ci li mu def muy indemniser les victimes. les victimes oui. xaalis leen di jox mais taxul seen doom dellu si waat dafa am ñoo xam ni ñu jógee ci seen ay waajur mami nga toog nii sa doom di dem ngoone foo jëm maa ngi jëm fi ñu ñëw ne sa doom doo nañ ko balu pistolet dee na mm. yaa ngi xalaat traumatisme boobu ci képp koo xamoon ci yow la dal ni mu mettee mm-hmm. ko faat ñu ne xamuñu kan moo ko faat lan moo ko rey balu pistolet fan la jógee ñu ne xamuñu kan la mhm. nga gis ay nit yu ñu doon dàq ji ba ci biir kër sol ñu tenue duñu police duñu gendarmerie duñu douanier duñu service d'hygiène mhm. dóor la ba nga tëdd génn dem bàyyi la nga gis ay nit yu jël dugal leen ci oto yóbbu leen ci ay àll dóor leen ba ñuy laax a yàq ñu bàyyi leen est-ce xam nga benn mbir ci manifestation yi ba muy metti bay metti Ousmane Sonko di aw fii ci corniche bi mhm. bañ naan dina fi aw ak fi aw arrêté nañu fi kenn koo xam ne un supposé gendarme la capitaine mu sol tenue yore arme mm-hmm. waaw police jàpp ko fekk ci moom arme te bañ ko jàppee bu am bal ba ñu ko jàppee gendarmerie dafa ne suñu ñun la bokk jox leen ñu ko ba tey enquête bi kenn waxul fan la toll bu fekkee gendarmerie li may wax lu dëgg ñoom nañu oote donc kii nga xam ne moom ñëw la yooyu yëpp dañ ko war a leeralaat maa ngi lay wax ne amnistie bi yooyu taxul nit ñi fàtte di nga histoire dafa nekk ci dëkk loo xam ne ba àdduna di tukki. day munoo toog ne lii doo ko waxtaanee wala wala doo ko wax. Mhm. ñi subir ay injustice ci nguur gi fi nekkoon dafa bari. Mhm. ñu ñu fi dóor faat leen rey leen ñu mais yow fii ci Pikine caméraman yi xam nañ lu may wax police mi ngi taxaw moom mooy def maintien de l'ordre n'est-ce mhm. police bu ñuy tiire ñoo war a tiire. bu ñuy dóor ñoom ñoo war a dóor bu manifestation amee ñoom ñoo war a def manifestation nga gis ay ngan di nit téye ay jaas si doq dàq ji ay booy fii ci police Thiaroye ci koñ ñuy dugg fa boo ñi dëkk ci koñ bi ñoo leen daw génne leen ñu dem mhm. ci kanamu police interview ñooñu fu ñu nekkoon kan moo jiite police damay laajte yéen ñi nekk ci plateau bi kan moo jiite police mos ngeen gi dégg mu wax ci. woote wuñu fii seen genre conférence de presse teg ah, seen ay nit teg ay vidéo teg ay mhm. vidéo ñu xëy suba France 24 weddi. balaa France 24 di ñëw ñu ñu nekk Sénégal ñoo njëkk a weddi. Mhm. xam tax dañoo teg ay vidéo def seen ay simulation. Mhm. jë faf image ya ñu génne ak la am bokkul. ndax ji nga fen sax boo ko def fen ba day rafet mais booy fen te yàlla àndul ci li ngay def daf lay weer. un crime n'est jamais parfait. mi ngi noonu munoo rey ay doomu jàmbur. Mhm. ji ay nit yore arme nekk ci mbedd bi di dox nii nga génne naan kii fii la nekk le numéro 9 boobu kan la fan la bokk. Mm. kenn ko enquête ci lu ko leer. fiitingu man waxuma sax journaliste parce que ñun moom mhm. injustice bi ñu subir garaawul parce que ñun ñoo choisir yoon dem ci terrain peut-être que ñi nga xam ne dañoo toogoon naanuñu lacrymogène demuñu dañoo toogoon ci plateau yi mhm. mënuñu ko subir donc ñun mënuñu nekk fi di victimiser ñoo fa demoon dañ ñoo dóor dañ ñoo saag ñun ñoo fa demoon mhm. c'est parce que lan pour joxe askan bi information la bonne information manifestation bu njëkk ba bu aji saar bu commencement ba fin yépp ñun dañ doon couvrir ci mbedd di gis la fa xew ñeyoon seen a yat fii ci Médina xam nga li ngay wax bu dee ay fen ñii seetaan wala ña fa dëkk ñoo lay njëkk wax ne mm-hmm. soxna si nga ne naam parce que booy toog di jaay xam-xam wala dafa am ku fekkee ba pare am na yenn image yoo xam ba tey génnul ay nit tee nañ ko seen téléphone parce que ñu nekkoon seen ay parentaire nekk seen ay kër di jël ay image ñoon ñu ngi tey image yi de mm-hmm. peut-être que caméra mënul jël dara parce que ñu la may foo ko jëlee pick-up yi doon génn ñu ciy bind éducation nationale mm-hmm. ay nit nekk ñi bokkuñu police bokkuñu gendarmerie loolu du am enquête kan moo leen kan moo leen jël léegi ñu ne waa général Moussa Fall yóbbu nañ ko ñu dañ fay ñëw pour fayantu kenn fayantoowul mhm. boo nekkee ci mbir ba am leneen lu ñëw da nga fay jóge keneen ñëw muy général bu bees bi ñu teg waaye nag ñooñ ba ñuy def dafa am ci institution ñoo xam ne ñoom ñoo jiite woon muy kan le directeur de la police mhm. dafa am ay comptes yu mu war a rendre exactement le général Moussa Fall da doon joxe ay ordre mhm. laataa ñu toj oto Sonko fii GIGN di toj otoom fii di jël ay pistolet di ko teg ci kaw nit ñi naa leen pousse leen bu leen caméra lu luy def loo xam ne général bi yëgu ko dañuy rendre compte ba pare. mu jox leen na leen lii ak lii ngeen di def ñu def ko avant ñu arrêté Sonko Ousmane sonk bu daan jógee këram ci benn nit ak ay partisan wam koo xam ne soo dafa naan fan laa jëm tribunal bu Ndakaaru même pas 30 minutes bu awee ci VDN bi day dem. bu awee buntu université day dem boo leen ko mayee jàmm mu dem wuy ci. ngeen ne ko yow man maa yor force maa yor grenade lacrymogène maa yor police maa yor gendarmerie fii doo fi aw fii laay aw nga ne ma aw. nga gaañ fa ay nit ci koo xam ne boo ko bàyyi woon mu dem léegi ñooñu war ñoo rendre compte wala ñooñu duñu ay doomu jàmbur amuñu papa ak yaay. ay caméraman ñu dóor leen ay lacrymogène seen tànk muy naaj. loolu lu ma mhm. naqaree. journaliste yi moom ñun moom li ñu daj ci nguur gi moom dafa dafa. xam nga wax mooy li ma la wax man du ma du ma wax sax pour journaliste xam nga lay wax. ñeneen ñi nga xam ne mhm. askanu Sénégal xam nga lan moo leen yoon xale yu góor yooyu am na ci ñu bàyyi ñoo xam dañoo am seen manifesté wuñu pour bëgg dem manifestation ne maa ngi nii dañoo bàyyi seen ay jabar bàyyi seen ay doom bàyyi seen yaay bàyyi seen papa xam nga la moo la ñoroon indépendance su Sénégal pour mbir yi changé parce que tolloon nañu foo xam ne ku képp ku noppi woon complice nga wala naafiq nga parce que mun mënu ma gëm ne non dangaa neutre parce que sa ceeb mi ngi tooy dangaa neutre parce que boo làmbee sa poos mu kii la ko ñoo ñu di xeex seen deret di tuuru am na ñoo xam ne seen deret boobu lañ doon jël pour dund ci mhm. Ibrahima Sall mu ngi koy wax léegi ci ñenn taskatu xibaar ñun ñoo ci gënoon a sonn xam ci lan ñun ñu daan def manifestation ñenn ñi ñu war a protéger ñoo yoonam ci ministre yi di capture suñu ay manifestation naa leen day taal réew mi jàpp leen ko mhm. lu nekk nag nga koy dégg mais liggéey la da nga koy liggéey ak dignité tey jeex na ji nga li ñuy wax ci dignité c'est très important ku mu nekk presse mu nekk keneen ak keneen nga nit war ngaa def loo xam ne ku wax nga wax ku siggi xool nga siggi xool ko mm-hmm. Mm-hmm. am na ci yenn taskatu xibaar laay waxal yoo xam ne tey bu askan wi di wax du ñu siggi deen xool mm-hmm. parce que ñoom ñoo ko liggéey ku nekk sa réew nga ci mën a liggéey loo xam ne bés bu ñu toog di wax histoire yow nga bokk ci waaye bu mettee nga daw wala bu mettee nga jéem a xool ne xaalis laay jaamu bu nit ñi di wax yow tey doo wax da nga war a am maandu noppi wala nga gàddaay génn tey ñi exile woon mën a ñëw toog wax am na ñeen ñoo xam ne tey la ñu war a génn réew mi dem am na pour lan yenn yi nga xam kan lay profito du état bu fi nekk de. Mhm. parce que du sonk moo yable woon pour ñu rey ay doomu jàmbur du jomaay moo waxoon ne dugg leen ci kër yi matte nit ji dóor leen. Mhm. dafa am ñu leen ko santoon. Mhm. pour lan pour bañ nit ñi wax pour noot nit ñi te teewul bañ ko defee ci lañ gën a nit ñi di dee. ñun dañ doon de manifestation fii ci Medina nga gis xale bu ñu fi tiire balle pistolet mu dee yow bu manifestation bu ñii di fekkee boo gisee ku ñu xaañ da ngay daw mais nga gis ku dee nga gis gën a déterminé pour ñëw. affronter les forces parce que daf leen ko jaraloon léegi nag ñooñu bu ne dañoo mën a yee fitna. amul lu ñu fi traité wul Ousmane Sonko fii ci dëkk bi nitu fitna la. mooy woote mortal combat bu ñu ko jàppee ñenn na ñaw ñenn ñu woote point de presse yi nga xam ne ay journalistes la ñu woon toog seen ay plateau naan nitu fitna la. li ñu ko def dañ ko ko war a def waa jàpp nañ ko dañ ko war a jàpp ak dañ ko war a kii pour daaneel parce que bu ñu fi wax moom foog naa loolu bu ñu koy wax du jeex donc pour ñëw ci général bi nga xam moom mooy général Martin Faye mhm. euh, kii mu ngi koy wax léegi moom la def au commandant de la gendarmerie nationale mu remplacer le général du corps d'armée général Moussa Fall mi nga xam ne ko dëgg yàlla dafa rendre war a rendre compte c'est pas la personne de général Moussa Fall ñu koy waxee armée dafa am ordre yoo xam ne da nga koy joxe. Mhm. waaye ordre nag wax dëgg yàlla leen Ousmane ko waxoon ci buntu këram. Mhm. ne leen bu ñu leen joxee ordre yoo xam ne légalul. Mhm. war ngeen ko mën a bañ a def te waxoon na ne yàgg yàgg. maak yéen dinañu daje xanaa boobu daje neex na daje bi mooy xam nga kañ. lever drapeau fii ci euh, pale de la république. président Diomaye daagu ba ñëw ci gendarmerie Moustapha mu tóoj ba ci kaw moom rek a tóoj xool ci kaw. Mhm. kon loolu jàngat la pour ñeneen ak ñeneen ñu fi nekk. dafay servir de leçon ak ñi fi nekk. ca tóoj ba la ca tóoj ba la. Mhm. daf ko tóojal ba ci kaw xam nga mooy lan. Mhm. mooy du du du ah. moom important mais kii jiite réew mi. dafa am loo xam ne nga war a defee ak moom poste pour ëllëg. tey seen ay bilan mënuñu ci dindi ñi dee. ci dindi ñi nga xam dañoo gàddaay mënuñu ci dindi gendarme bi réer ba tey feeñagul. te kenn mën waxul fan la nekk ay jën lekkuñu ko. Mm. nañ ñu wax fan la nekk loolu mooy wax ci mm-hmm. amnistie yooyu yëpp mais dañoo war a rendre compte askanu Sénégal. Mm-hmm. indemniser c'est bien beau ñu indemniser nit ki. parce que peut-être ki ñu ñu rey ñu bari ay soutien de famille la ñu woon. Mm-hmm. ñii dañoo demoon mécanicien boobu ñu rey fii ci yëmbal Diop. ñu dóor ko balu ginnaaw bal yooyu fan la doon jóge mm-hmm. armes yi kan moo leen ko joxe. est-ce que kon armement yi ñu doon dañ fi dugal ay armes fii ci Sénégal te amul réglementaire ak yooyu war ñu koon wax. bu ñu préparé troisième mandat on disait que ne dafa am 45 milliards de yoo xam ne armes yooyu dañ ko war a leeral fan kan moo ko jënd. eaux et loolu xanaa ay gazelle oryx lañ ci rey ak ay gaynde ak ay ay mbir mhm. ñu rey nit ñi léegi ñu ne kenn du wax mhm. ñenn ñi naafeq naafeq goo xam dañ naan toog ci plateau mhm. bu wax ñu ne dangaa far Pastef chroniqueur bu wax ñu ne dangaa far Pastef ñu ne la journaliste alimentaire bu ñu demee xool xool xool ba loolu marché ñu jéem a xool feneen fuñ la ko tege waaye xam nga du ñu koy waxee dëgg rek mooy mujj ma jeexale ko ci général euh, Martin